dégg nga aw ma xakama maanaam jënd ab téere ci moom ci misaal mu ne jaay mi nag moom foo mu war ba pare ngeen daakoo ne léegi amatul dara yow mi génn génn ci ba pare nag mu jox waa ji téere bi ne ko demal ca diw mi nga xam ne xam nga ko lu mu ko xaymaa rek ngeen jaayee koo kii te bu ko xaymaa dara waa ji jënd kër bi sañu tuta génn kooku baaxut ndax force ngeen ko mu jënd loo xam ne xamagut prix yow it xamagoo looy jaayee amma su fekkee nag dangaa jël si téere bi moom nga ko soxla rek nga yóbbu ko ci diw ne demal na la xayma la bi jar nañ ko jaayee noonu waaye nag jëndkat bi bu ko neexee jënd bu ko neexee bañ jënd loolu dara nekkul ruma wala nga xam ne xakkama at na bii ci moom fulaanun diw dégg looy jënd marchandise ci yow mu ne ko jënd mi nag moom moo too ci génn dañ koy dog ba pare ngeen dog ko ne nag marchandise bi lu ci diw atte ne lañ koy jaayee noonu lañ koy jaayee te xas nañ ko moom xas na war a fay ba pare jënd mi moom jeex na moo too ci génn te lu diw war a jaaye rek la koy jaayee foogu xaraam na ndax moom xamul li muy jënd prix bi ñaata yooyu xamoo li ngay jaayee prix bi ñaata la amaa su fekkee da ngeen dem ne waaw diw mooy xayma maanaam a mooy atte bu dee nangam la loolu lañ koy jaayee waaye yow jënd kër bi nag boo neexee boobaa bu la arrangé nga jënd bu la nga ba loolu dara nekku ci moo tax mu ne in alzamane waral na bi kullin ci képp ci yooyu balaa muy xaraam rek njaay ma war nga xam ne jënd kër bi seen yëpp ci génn ana Moussa aw bi bil qimati ay wa mimma naha bokk na ci tere na موم شريعة نوش موم أن يعطي موي موجع الباي وجي جاي كد بسلعة وماس ديسم أحدا كان ليعرضها غير مفين يلقو على الناس سنين ولا يبين لير لو نيلكو سمر نجك معلومة بن قم بل بنك يقول ني واخني لو نيلكو بيع جايكو بما يساوي شي نم عند أهل المعرفة تبرم قم قمي mu ne ko borom xam-xam yi lañ daakoo ne moom nga koy jaayee na nga ko jaayee loolu te fekk nag jëndkat bi moom force mootu ci génn kooku xaram na li ma fii ngi da ci nekk min nawil jahalati ci xeetu réere bi sama na ci njëkk mm-hmm. aw ma xakama bi fulaanu ay aw yaqul wala mu war bàyyi waa ji a ji mm-hmm. bi jaay ko bi ma ci na xam ne yàqu mu bi ci moom fulaanu diw mi ne sama na ci njëkk koo gi dafa lu di wax ne nañ jéggi loolu jaayee ko loolu te jëndkat bi mënutee ñàkk jënd mënutee jënd woy sama woy sami mu tudd ta mu tudd ci commerçant yi ne lu mu nga koy jaayee ko loolu laana xukuma fulaan ndax atteb commerçant boobu majhulun lu ñu réer laal ba yi ci aji jaay ba wa jaari bi sinaat ak ku yóbbu marchandise bi woo moom moo xam ne daa mooy ku koy gaaral ba yi ngir jaay إن بكل الزمانك أي أيوة ومحل النهي بربني ترى في ذلك تقول كل لب وقول بيه ميتابين جايما بين المتبايعين سيجن تنيان نجاين تعال لزومي وار كم جن كد مم لقاي أترسني سيجن كوكو بولا هرم وما إن كان ويبونك يا ربي من في قوله شوخم بيعها جايكو بما يساوي شرطان تلوك ننقم عند أهل المعرفة شبر قبيل aw bi maa xakam wala ci la àttana bii ci moom fulaanum diw ala xiyaaril mustari nag ci tànneefu aji jënd ji bu ko neexee ji attee wala boog ñi xam maas ne bu ñu ne lii lay jar bu ko arrangé mu bu ko arrangé mu jënd ba fay noonu la ko loolu jaay suma ji dagan la xëy moom noonu waaye xaaraamaluñ ko kon su fekkee jëndkat bi moom bu gars yi attee ba pare dafay xool euh, kooku xaraamut wa taqaddama jiit na anal manhiya anhu ne lañ tere yuf soq dañ koy firi ay su waqan bu tàbbi ala luzumi nekk njaay mu war njaay moom bu fekkee dañ koo xaaye te yéen waral ngeen ko bu wàññee moom dafay xaram dañ koy tas loolu mooy moom tegtal bi war ne mën naa wëy waaye moom fekkee nag jëndkat bi moom njaay mi ni ngeen ko defee dafa xaram ka waaye jëndkat bi mooy xool te moom bu xoolee ba pare la ci xaramoon sax dafay mujj dañ ni ki xamaguñ prix bi waaye nag moom dañ buñ saa yu xamee prix bi day xool bu ko neexee jënd bu ko neexee bañ mm-hmm. foofu ba léegi xaramut ndax dañ xaramoon dañ na balaa ngeen a boo gis dana dagan béy wu yi jaay dara al gaayib bu fàddu anil ma di ci ca jotaay ba. Mm-hmm. aw anil baladi wala ci dëkk ba. Mm-hmm. aw an ra'yil ayni wala gis ak bët. te si ne ni al marbuuta buñ takk. fi ne àddili ci tees al maaruf buñ xam. al aan léegi bi tardi noonu lañ koy tuddee. Mm-hmm. qabla fatxi njëkk mu koy ubbi. wa kashfi saatiri ak wuñ aji nëbbu anu ci moom. ala sifatin mazkura ci melo buñ tudd. maanaam may wuñ feeñal fil barnaamij yi ci këyit boobu mu addaftaru moo di kaye min naw in ñu deseene fa xeetu marchandise ba wa tuulun ak guddaayam wa haddan ak yaatuwaayam wa jawdatan ak qualitéem wa radaatin ak suufeem wa raqmun wala ñu bind ko istaarat siwee na bi ci moom assiratu marchandise ba yu sammuunoo dañ tuddee loolu bil maarika maarika mooy leen woyu moom timsaalum deseen koo xam ne yëttu ba mu danañ ko bind ala siyaa bi ci yére wa xëyri ak duru yére ala sakkali aadami ci melo doomu aadama aw fiin wala ñeew tawrin tayrin wala picc aw samakatin wala jën wala xawisa ak amin ruy loolu mooy rek su fekkee dañoo def marchandise bi ci biir bi wala biir mbuus gu a doon nga xam ne mënoo koo gis ñu dessin ko bam ba nga xam ne yaa ngi gis ci kaw marchandise bi nga xam ban qualité mhm. façon bi nu mu mel yëpp jaay portable mhm. man nga koo jënd te gisoo jëmm ja dégg nga mm-hmm. marché bi bu fa nekkul waaye mel nañ la ko ba nga xam ko su boobaa mën nga koo jënd dégg nga mm-hmm. kon loolu noonu ñuy dessin ci kaw yére bi mm-hmm. bu dee mel noonu lañ dessin marchandise bi ci kaw kees ba su boobaa dana dagal léegi boo ko jëndee nag kom noonu ba pare nag fekk nañ ko dessin ak ni maslis bi mel du benn moo tax moom lay wane fen wajële nam fekk na mustariya ji jëniñ ji assurance maslis ba mu waafiqatan mu dëppoo li ma fi daftari ñeen la nekk ci kañ ba mine sifati ci melaw adati bi nga xam ne alaqdu fas ga aliyaa ci moom albay na nekk xam ne fas ga aliyaa nekk na ci te albay wu njaay ba kaana nekk na laaziman albay wu njaay ba kaana day nekk laaziman di aji su bi nañ la ko melalee noonu la mel hmm. jaay ma day war suñu ko cee génn woyn waje daa nem fekk na marchandise bi mu xaalifatan mu aji wuuteeg li sifati ñeel melo alati bi nga xam ne waqaana tàbbi na alaya ci moom alaqdu fasam njaay ma kaana nekk na loo ñëw ko alxiyaaru tànn fii xabuli sirante ci nagu marchandise bi aw roddiha wala delloo ko hmm. su fekkee ne marchandise dafa wuteeg nañ ko melalee hmm. yow yaay tànn bu neexee nga delloo ko jël sa xaalis bu neexee nga jël ko ndax lañ la waxoon du dëgg aw ajalin majhuulin wala diir bu ñu réyee da ngay jënd marchandise waaye nag xamoo kañ maanaam eh, waa ji jaay xamul keneen kañ koy fay loolu daga wala yow kañ lañ la jox maas bi daganut aw ajalil majhul wala diir bu réere aw kal xabala wala lu mel ni jaay ëmb lu nekk ci biir kooku dafa xaraam xabala dana ci ñëw firi ko waaye bokk na ca tere na moom sariyaanu ci moom bay mu sinaati jaay marchandise bi sama nañ ci njëkk majhulin buñ réere ilaa ajalin mu jëm diir majnuun bi ñu réere kaan yaqul ni ko mu wax loo ñeen ko biantu ko jaay naa la xadal sawba yére bii aw xadal xayawaan wala xayawaan bii biansatin ci fukk ilaa qudumi zeydin ba ñëw ak zeyd fukki dërëm nga fay waaye bu zeyd ñëwee nga may fay kañ lay zeyd ñëw kenn xamu bu xam nañ ko nag dara nekku ci bu dee xamuñ ko nag xaraam na ay maji u bu zeyd di jugee min safari ci tukkeem wala mu nekkut li maji yi ñeel dikk zeyd moom waxtu waxtu mu ay bu ñu ràññee su boobaa du dagal laan na jaaxlal ajali ndax déere réere diir ba mof si lun aji yàqal leen bàyyi ñeen jaay ma fen kaanam nekk li xudumi ñeel waxtu waxtu mu ay bu ñu ràññee jaasa dagan na bu dee xam nañ ne kañ lay zeydu ñëw su boobaa njaay moom dana dagan wa xawla waxam awkal xabala yu siir dana junj bii ci moom ilaa maa war a sunna di sunna mel tere eh, li ànd nabi ndax naraa tere naan bayn salaasa din ci ñetti jaay bi ci njëkk almadamin mooy jaay yi nekk ci biiru jigéen te juddoogut waaye moom maa fi butuuni inaasil ibili mooy nekk ci biir jigéen yi gëlëm yi aw xëyri ha doom ji xar mi ëmb wala gëlëm nga wala lu mën doon nga di ko jaay te juddoogut xaraam mm-hmm. wal malaaqihi ak mën ni ya waaye ma maa fi zuxuril fuxuuri mooy la nekk ca gannaaw kuy ya meneen ci mën nii hmm? mu ko gaa yi firi woon nag mooy jël sa kuy mi ne kuyam sàngam rek lay euh, gëlëmu sàngam rek wala boog nagu sàngam rek lay tëb mu jënd mën niyu sa mën niyu kuy daal te xamul mu toll loolu moo ko xaraamal waaye bu dee saa yu benn mu fay ñu ne loolu dëggan وعبد الحبلة ومم أن يبيع من مجاي أسقس جمجة ناقة جرم أو بقرة ولا نك أو حمارة ولا بام أو أمة ولا جام بثمن مؤجل سنجد من ديرل إلى ولادتها بجرم وبيع ما تريده الجاهل الجر دين dangay ngay jaay nag walla lu mu mën a doon rek nangam nga koy jaayee dégg nga waaye dañuy xaar ba mu am doom ñu jaay doom ja fay ca maanaam daal wala boog ngay jënd ci nit dara daal ak lu mu mën a doon waaye da ngay xaar ba sa nag yu xam doom nga jaay doom ja fay ci loolu kooku xaram na waaye la tunnax yi sababu tere ba fi adi asiyaa yi ci mbir al jaxaalatu mooy réere doom jooju nga ne moom ngeen xaar ba mu judd ngeen jaay ko fay sa njëkk hmm? kooku xamu leen doom ji dana juddoom du judd xamu doom ji dégg nga bu juddoo dana fi yàggam maanaam dana dem ba ngeen mën koo jaay balaa ngeen koo jaay dina dem du dee kenn xamul daal waa fa xam na ahlu bidaa dinaa ñoom ci réew yi année bien mooy mu jaay sax su nit nit fa baqatin genn wàll nag ay xamaatin wala mbaam aw xëyraa wala keneen li àqal ñeel wala lu ñoom ñaar li àqal ñeel keneen bi junee hin ci junee yi masalan ci misaal dégg nga wa yaqul lahu mu man am xëy ko dinaa la baax ta taxlu sa ba mu génne mi bat ci biiram maanaam ba mu wasin <coughs> eh, ba mu jur ni taajan ak ñu waaye kon mu nekk aloo faaw ma min sama nii ci njëgu domb léegi moom bu njëkk bi benn la da ngay jënd ci moom dara nga di ko jox genn wàll nag wala genn wàll mbaam waaye nag bi dafa ëmb nag nag da xaar ba am doom nag hmm? bu doom ji juddu ma jël doom ji jaay ko fay la ca loolu la ngeen jaayante xablul xabala la muy ëmb boobu loolu la xaraam li ma alim te ngir li xam mooy ne doom ji xamu leen nu muy demee aw istarihi wala jënd ko na nga dundale xale ajaroo diiram dama lay jaay dara waaye nag njëg gi may fay jox dépasse ba may dee ah yokkul wax waa ji kañ dee kenn xamu ko hmm? su boobaa mën ngaa mën ngaa dem fere fere lu ëpp la nga jëndoon sax mm. ay wam maanaha bokk na ci la tere naanu ci moom saant sariam ane bi mu jaay a kenn mm-hmm. li axar ñeel keneen daabatoon daaba aw kër aw naxalan wala gërëbu tàndama doon fexe ngir mu dundal ali ci moom mi mi ko jaay mu de tax yaati di rëb dundam daana mustari naa ji jëne ji laay dari xamul kam yaay si ñaata at lay dund ak wa ji jaay asal si ne fukki at la ak sa wàllu ëpp soo baax xam nga la war a fay xamul mu toll moom xaraam na waa ji mën ngeen jaayante sax mu far dee far xam nga loolu dafa xaraam wala mu gudd fan lool nga fere ci lu dul jeex xoo gi dafa xaraam maanaam yëpp mooy njaayam erreur rek wa fasaadu haadal aqdi li yàq njaay mi min jihatayni ñaari anam mooy jahalu samani réere njëgg wa jahalul ajali ak réere diir ba wooku mu àttee mooy alfasxu dañ koy tas xamuñ njëgg ñaata la mhm. diir bi ngay joxe ñaata la parce que waa ji fekk mu ngi dund rek yaa ngi koy fay mhm. ba léegi diir bi xamuñ ko diir bi njaay mi jee xamu leen ko te ñaata nga ko war a joxe xamoo ko parce que dundam xamu nu mu loolu dañ koy tas aw charte xamlin wala charte ay ëmb aw bi tafriqi wala di war a teqale doom an um ummi ci yaayam jaay charte laa ci ëmb gën ah, dafa ëmb kat dañuy yokk pire ba dafa araam dégg bu dee ëmb gi tudd ngeen ko tudd li ngeen ci ne mooy yokk pire ba dafa araam parce doom jooju leeru ndax ëmb bi ta tasam du tas wala teqale doom ak yaay daganut waaye nag dafay fekk mu nekk jaam maa bu dee xayawaan teqale doom ak yaay nekku ci waaye nit moom jaam booy yaay jaam xam nga jaam nit la nga teqale doom jag yaay ji kooku duñ ko nangu dégg nga min qable isgaari njëkk foq teqale doom ak yaay ji te doom ji foq gut loolu daganut fasat njaay yëpp la wax ne yàqu na njaay yëpp yàqu na ay wumi maanaam bokk na ci la tere naanu ci moom asharu sharia bay xayawaan njaay xayawaan aqilin bu am xel comme kaamatin comme jaam aw xeyra aqilin wala bu amul xel xanaaqatin comme wa baqaratin ak nag wa isaanin ak fas wa naxwaa gi niroog yooyu bi shartil xamli ci sartaay ëmb ay bayaan yestarate mu sartal al bayan wa aji lil mustarimin aji ji an naa ne lii mu lu ëmb la li anna sartal xamli ndax sartaal ëmb gi yasiru day fi sama xayawaan ci jégu xayawaan dégg nga kooku daganut mun leen yokk njëg gi daal parce que li ngay jaay dafa ëmb walaw kaan dina nekk ne alhamdu ëmb ga zahirin daa daganut li àndoon ndax li am baam ru man fas amaana mu seey alhamdu ëmb aw saqata wala mu rot aljaninu mbéemun moom may itam daa ji dee la ëmb mën naam bu jur dee kon fa nax yu tere giñ tere fii ci loolu di dansé gi moo tax jënd lu nekk ci biir mën naa judd mën naa bañ a kooku daganut dafa am dansé daal kooku moom réer wuñ sax ne am na lu nekk foofu waaye dafa am dansé waaw maalaw zakkar waaye bu tuddee albaay aji jaaji alhamdulilah amu jëmil xëyri sartin ci loolu sart ba li fi nekk li bayaanil xaali pour leer la la xaalu bàyyim bi rek nga xam jaay na la ko comme ni lay jaayee prix xar mi ci misaal waaye ma ne dafa ëmb nag pour nga toppatoo ko bu baax namul ci carrément pour nga yokk prix bi loolu na aw zakaro wala mu tudd ko baax na tamaamin bàyyi gannaaw mat ak njaay ma fay juus dana dagal bu dee da jaay ba pare mu door laa wax dafa ëmb ah loolu boo xoolee ëmb gi taxul nga yokk prix bi yow la mu la ko jaayee rek loolu nga ko jëndee léegi nag dafa mel ni ku muy jaay lu ëmb foo nga yokkaale prix bi ndax da ngay jaayaale ëmb bi loolu dagal moom ko bàyyi wa gaza nak ni kaana bu nekk alhamdu am gi zahiran di aji feeñ bil amati ci bu kawe wa zakaru mu tudd al baax aji jaaji leen mustari ñeel aji jën jille aji tabari ngir dañtalu min xam liyaa ci ëmb ga fay noonu rek moom koy jaam bi dafa ëmb te rafet la aliya mooy jaam bu rafet ku ko daan jënd ñaane daraan bëgg sëy ak moom te xam nga ne daaw ci bëgg ëmb fekkee nag jënd kat ki la koy jaay ëmbalul ko bu moo ko ëmb te mooy borom kooku ëmb warat la suñu koo jaay bu dee ëmbalu ko nag mu jaayal ne laa ëmb na kat waaye boo mbéy doo ma ko delloo loolu dara nekku ci ndax dara bëgg a xamal ni kat jaam bi ëmb na parce que jaam gu rafet ëmb gi suufi la sax ci moom day wàññi pirim kon mu wax la ko ngir bañ nga def nga ñëw di indiwaat yeneen problème loolu dara nekku ci waa ma zikrul xam ne waaye bu tuddee ëmb ga lil mustari ñeen ay jën ji fi amatil waxsha ci jaam bu xees ay kari ari alkariatul manzari boo xam ni ku ñaaw la foofu moom noonu loolu dañ koo tere ndax de ndax xam ne dafa bugg a yokk prix bi ku ñaaw moom soo sañoon muy ëmb di am doom rek ngay am xaalis waaye ku ñaaw kenn soxla kenn du seeg moom kenn dafa moom dara ah, kooku ëmb bi arrangement la hmm? kon bu dee bu ñaaw ngay jaay ne ko dafa ëmb kooku day ñëw ne da ngaa bëgg a yokk prix bi su loolu dagan xam laa ndax tudd ëmb ba ba ay siraatoo wala sartal day nekk li ëpp li si ngir yokk fii sama yaay si ñàkk ma naha bokk na ci la tere naan ci moom asharu sharia naxee taxarimin tere xaraamal tafriqu wala di teqale doom zakkaran góor kaana nekk na moom doom ñu unsa wala jigéen an ummi ci yaayam qabla saari njëkk muy bañ di rot rawaadin ba ñu nàmp ya ba ñu judduwaale daal wa in baati badaliha ak sax ci bëñ yi doom ji daal fekk ba ñëw rotu ba ba nga xam ne moom léegi nekkul di saxaat bëñ ba ñëpp na bëñ yu bees Hmm? kooku sañoo ko teqale doom yaay ja nga ne ko loolu bàyyi ma lañ wax wala nit ne wa hada lii xaasum lu jagoon bil xayawaan al xaqili ci xaqili ci xayawaan bu am xel doonal bahimi waris wala di teqale doomam xan ummi ci yaayam xable isfaari njëkk muy njëkk muy fekk njëkk foq bi bayin ci jaay aw dabihin wala rendi aw ihdaayin wala hadiya bàyyi moom mën ngaa teqale yaay ak doom tafriqagut waaye doomu aadama moom mënoo teqale yaay ak doom waaw maa tafriqatul xayawaanu bahimi waaye teqale xayawaanu bàyyi ma xan ummi ci yaayam xabla fat mi njëkk muy fer minar daañi ci nàmp fu makoroon luñ sib la faqat doom dong nga te jaay yaay bàyyi fa doom te doom ja feragul loolu lañ koo sib bu dee ci bàyyi ma bu dee si doomu aadama moom dafa xaram وهذا لي معنى قول من معنى وخم من قبل إصغار جك فوق وقول وخم فصل يقنا بسكون السكون غير القافية نيل daaneel ga aaxiru bayt mu mujjee bayt ba maanaam maanaam ana tafriq wala di aadami da ko teqal doomu aadama ak muy fekk foq ina am na bi sama bayin sababu bu njaay fay noo naka njaay ma yekkun day nekk faas den daa ji yàqu yo yàqu mu danaa alxakima tekat bi fas kii ci tas ko jaay yaay bàyyi doom ci jaam daganut wéerootu danañ delloo awal du doom ji di ummi ñeel yaayam xataa yasxara ba mu foq xataa yasxara bañ foqloo ko doom ñi nañ ko dellu ci yaay ji ba mu foq fen baanam jaana umu yaay ja bu amee wala di waris doom ba xukkuma at nañ xale ci moom bi bàyyi wala di si doom ji ma umu ànd ak yaayam ñoom ñaar ñoom lañu boole jaay wala mu mm-hmm. mu nekk mu tamit aji dajuloo maa ànd ak moom taxte milk mustari yi ci roon moom rek aji moom aji jënd jë fen abaanam bañ na nag ruddal ñu delloo ilay jëm si wala umu yaay ja boo waxati ñu jël minum ci moom sama naa njëg bi xukk mi jaate waaw bu fekkee dafa bañ a jaay doom ja ànd ak yaay ñu tas njaay ma rek delloo borom alal ji alalam delloo ko jaamu moom fa in faraqa nam teqal na benn wala di diggante xale wa ummi ak yaayam qabla isxaali njëkk muy foq mm-hmm. benn xel wala di ci goreel doom ji nga dafa teqale yaay ak doom ta foqut waaye nag teqale gi mooy dafa goreel kenn mm-hmm. aw wala mu goreel yaay ja benn xel ci goreel wala di ñeel xale ba aw li ummi wala yaayam fa jaayisu aji dagan la li tasawuf fi shari ngir seen tug séeréer yi xuriyate ñeel gore gore goreel séeréer dafa bëgg goreel moo tax boo goreelee yaay bàyyi doom du la aaye jaay leen rek la bañ teqale leen waaj wój bëre dañ ko foote rek ci maa ma si boole leen ila isqaari ba foq boo goreelee kenn bàyyi kenn foo nga ñoom ñaar ngay boole ba ni ba ni ba ni foq amee wayum kin dana jàpp ne rujon xawlihi delloo waxam fasada yàqu na li jëmeen waquudi ñeel mboolem fas fas yi al manhiya an a yuñ tere mboolem ñoom lu wax ne xaaya lañ ko rek ko jaayee njaay mi yàqul dañ koy tas wa mafhumu an ummihi la ñu déggee ci yaayam ana walad aadama yi ne doomu aadama isa hasala dem am na tafriqatan teqale bayna wa diggante wa bayna abi ak diggante baayam aw jëddi wala maamam bu góor aw jëddi wala maamam bu jigéen xabla isxaar njëkk muy foq falaa yakun du nekk ak bay mu njaay ba faas dindaa ji yàqu moom kazalik comme noonu la teqale doom ak yaayam la ñoo waxu doom ak baayam waxuñ doom ak maamam bu góor ak bu jigéen yooyu moom du yàq njaay dégg nga bàyyi ma it ku ko teqale yaay ak doom ba du yàqu in uridu al-islaam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh